liggéey euh, waaw maa leen fay bu baax a baax. waa euh, ngi tey commission euh, discipline et réglementaire ñoom ñoo ñu convoqué woon par rapport ak événement bi amoon dimanche suñu mbor doon bëre grand combat bi muy Cheikh Super Jamono. bon dañu woo doon ñu déglu euh, du ñu wax di ñu laaj suñu xalaat ci ni ñu gisee mbir yi waaw man nag ñoom bi ma ñëwee wax dëgg yàlla li ma leen expliqué wax naa ak ñoom euh, ci côté maanaam manque de euh, de de considération bi ma noté parce que vraiment ak nu mu mënti demee ñun ay structures yu yu yu yu yu yu yu organisé lañu yor kon tey ji boo ñu boo ñu boo ñu dee convoqué war nga bind kayit yónnee ñu ko. parce que am na ñoo xam sax dañu mujj tardé parce que amuñu amul kenn koo xam ni gis nañ lenn fenn dañ ko dégg ci presse bi rek ñëw suñu père Maxime Bargane mi ngi ne manager la woon ci benn mbër mais dafa daf ko gis ci presse bi kenn convoqué ko. léegi euh, sanction yi tamit bon euh, dañ koy dégg ba léegi ba léegi fi ba fii may wax ak yow kenn joxuñu këyit bi wan dañu sanctionné parce que déjà man dama yaakaar ne sax tey dañu pour laaj ñu affaire li am ak demee noonu mais loolu lépp amul dañu doon laaj suñu xalaat ci yàq beeg yooyu mu nekk lu ñuy ñaawlu nag. mu nekk affaire boo xam ne lu ñuy ñaawlu la ñaawlu nañ ko trop ba fi ñaaw yem mais en tout cas daal bon ñun ñu toog di xaar di déglu waaw parce que vraiment bu ñu gisee li xew keroog dafa am ay xale yoo xam ne ñoom ñoo doon wàcc sànni siège yi di ko yàq te xale yooyu am na ñu si jàppoon keroog mais dañ leen bàyyiwaat léegi ñu war a mën a ba pare ñu wëlbatiku ñu dañuy sanctionné mbër yi loolu nag ñun ci ànd sanction moom duñ ci ànd dañ duñ ci ànd mënuñ mënuñ mënuñ si d' accord parce que suñu mbër balaam ñu koy sanctionné day def lu ñu ko sanctionné mais bu def lu ñu ko sanctionné duñ ko d' accord parce que CNG ay texte ak règlement la te texte ak règlement yi boo xoolee amul fenn fun ni supporter bu yàqee lii nañ nañ sanctionné mbër mi waaw te li xew keroog nag yàgg na am ci làmb ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax parce que gis nañ fi ay événement yu bëri Garga Mbossé ñëw na fi war a bëre si sax ñu xaañ ko xeer làmb ja mujjul am euh, Siteu bi muy bëre guy gi ñëw na ba biir stade ñu xaañ ko xam nga te gisuñu ñu sanctionné kenn waxuñu ñu ñu wax kenn dara est-ce que comprendre nga xam moom moom moom moom la ñu ci presse bi ba sànq may wax ak yow ba léegi may wax ak yow nii waxuñu ñu dara dañu ñëw déglu ñu wax ak ñun waaw ñuy xaar nag sanction yi génn pour ñu xool yan réaction la ñu def en tout cas responsabilité yi moom c'est partagé parce que bépp euh, promoteur buy organiser fii ci euh, làmb Sénégal ah dañ naan la nga dem fay sa sécurité ba mu mat soo fayul sa sécurité parce que seen yéen da lay jox cahier de charge cahier charge boobu sécurité daf ci bokk boo fayee sa sécurité boo ko fayul euh, làmb ji du mën a am léegi nag su fekkente ni fay nga sécurité bu doy léegi éléments yi ñu war a indi indiwuñu ko loolu vraiment kon lii am moom mooy waral loolu. parce que tey jii da fay sécurité te doo gis éléments yi loolu moom mooy problème bi parce que keroog fi nekkoon ci ay ci ci ci ci ay trop. waaw même lamb Alioune Seydi ak ñaq jariñ loolu amoon na fa waaw loolu nag mu ngi amaat léegi nag dañuy wax waa CNG ak ministre des ñu wax waa ministère de l'intérieur ak police nationale ñu jëm a xool ñu ci jël disposition parce que euh, war nañu créer boog ay stades au moins teg leen fii ñu jëm a teg affaire ci yoon waaw mais en tout cas ñun sanction bi ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg waaw lii supporters yi def rek ñu ngi koy ñaaw ñaawlu di ko déplorer mu nekk lu ñaaw loo xam ne léegi nag man proposé naa leen ne laan leen s'il le faut même man dinaa woo mbër mi nga xam moo doon bëree grand combat mi Cheikh Super Jamono bi ñu wax ni moom ay supporter mu ngi ko def man en ñu ànd ñu xool sama école ñu fa mën a yor parce que gis naa ne chaise yi ñaari boulon moo ko téye suñu ñëwee ñun ñu jéem a fexe nu ñu jëlee euh, kii yi réparé waat yi nga xam ñoo ko mën mën nañ ko réparé yi nga xam ne nag parce que chaise yi plastique la neexul damm neexul damm ñaar buloo moo ko téye man proposé naa leen loolu léegi bu yeneen école yi d'accord nañ ci loolu tamit ñu ñëw jéem a xool nu ñu ko réparé fexe ñun defaraatee affaire yi ñu xam ne làmb ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi CNG ñun lay liggéeyal ñun tamit CNG la ñu liggéeyal en tant que président en tant que structure kon il faut ñu xam ne ñoo bokk lépp mais lépp lu ñuy def nañ ko teg ci texte pas tâtonnement pas pas précipitation pas influence parce que gis naa bi affaire bi amee dëgg na ministre bi génn keneen ak keneen génn ñëpp génn te loolu wax dëgg yàlla dañu war a bàyyi seen ñu liggéey si ak seen tey ji bakkan parce que ñu ma fekk fii ay borom xel laa fekk ay nit ñu baax laa fekk kon nañ leen bàyyi ñu liggéey ak seen xel seen tey ji bakkan te bàyyi influence yi amul benn sens waaw li am keroog ñun ñëpp dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu mais nag dafa ay responsabilités yu partagé en attendant nag ma jot kayit bu wane ne dañu sanctionné sama mbër téye nañ téye ba am mais keroog jourul combat bi euh, Cheikh Super Jamono bu muy ñëw stade heure convocation bi kat 16h la woon kat 15h45 fekk na ko fii ëppalul nit euh, tardewul tardewul mystiquement amul benn problème boo xam ne Cheikh Super Jamono def na ko fi ci ci ci ci arène nationale bi waaw ménager bi mi di fekk na ko fi man maa nekkoon kër ga canaliser boy yi ñu teg suñu discar duy ko ba mu fees ànd ak suñu mbooloo ñëw ndànk bëre waaw yàlla am na sax erreur erreur d'arbitrage am na ci combat bi mais man bokk ARELS sama ki ma doon bëreel président am sama nawla la gis naa ne mbiram dafa dañ ko diw dañ ko xool mu niin ñu ne ko da nga fomp bi ñu demee bi ñu ko xoo bi ñu ko fompee bi mu ñëwaatee kenn xoolaatu ko looloo waral bi action bi amee ko songee mu du mu signalé bi mu signalé ni arbitre dafa dafa kii seex mu ni arbitre dafa sifflé ko doxal ci kawam dawal ci kawam dawal ci kanam mu daw ci kawam loolu mooy affaire bi maa ngi dégg ñoom dañ ko dóor rek dafa daw ak loolu lépp te dara amu ci moom l'auditeur en personne wax na lépp mu leer naññi di sant waa wasaare di leen këram di kontaan ci seen job yéen yéen a fi pour lamb fii la lépp di leeree wasaare lamb maa leen nuyu baax di leen sant di nuyu Baye Djili sama xarit. aw après tout euh, wasaare lamb dañ leen di ziar bu baax euh, di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ndax tey nit a ngi toog ca këram mënul déplacé wu euh, tey li nga xam ne dañ koy jële Euh, muy arène nationale ci làmb yéen ngeen ñëw di leen ko indil ñu di ko xool kon loolu dañ leen ciy ñaanal d'abord féliciter leen ci encourager leen ci ba ngeen dem tey jii ba war a mën a couvrir international yàlla mën na ko yëmb na ko yàlla leen ko defal parce que ñun dañ ko rafetlu quoi dañu rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ay xale yu sawar ngeen te et ay jàmbaar ngeen et puis itam bëgg ngeen itam askan bi di nga xamante ne bi mooy xew ci seen dëkk loolu nag nit bu koy def da nga koy encouragé d'abord avant mooy dugg ci li nga xam ne euh, moom la ñu nekkee woon fii parce que boo gërëmul rek bon da ngay xalab te yéen da def liggéey bu rafet donc kon war nañ leen ci encouragé nit ñi xam ko ñun ñi ngeen introsé ñun ñoo leen mën a waxal loolu mais yéen mënu leen ko waxal seen bopp mënu lañ ko waxal seen bopp donc il faut ñu di leen ko waxal parce que lii jël sa temps dagg sa activité yëpp ñëw euh, pour wan nit ñi loo xamante ne bii tey xewoon na ci seen dëkk te mënuñu ko fekkee amuñu jot bi te may may ñu leen sa accès pour fekkee ko yéen ngeen jox leen ko ñu mel dañ ko fekkee loolu il faut ñu encourager leen si waaaaw li ci des nag mooy seen euh, CNC dañu woo woon ñun responsable des écuries yi waaw bon bi ñu wooyee aussi liñ doon waxtaanee ak ñun mooy li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax arène nationale ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk am nga ci part de responsabilité du dëgg ndax suñu alal la du alalu jàmbur suñu alal la nit nag su fekkente ne dafa yàq alalam il faut nga xamal ko nekk sa alal nga yàq il faut ñu bàyyi violence defaraat image su ba mag ñi nga xamante ne bii tey euh, bëgg nañu làmb muy seen culture ñu mën a jóg di ñëw. di ko assister di ko seetaan mais tey fi mu toll nii mag ñi ragal nañoo ñëw ci làmb lu tax ndax image su làmb rafetatul te ñun ñoo war a defar image su làmb il faut que ñu bàyyi xel ci loolu li ci des nag mooy euh, man suma mbër euh, mooy caatu lu musin moom moo doon bëree ak mbëru jëf soog a nekk comprendre moom moo ko daan mais nag ñun ci suñu jëmi bopp suñuy xale wax dëgg yàlla. ñëpp bu ñu waxee dinañ xam ne kay baax violence suñu violence suñu mais nag problème su amee dañ koy bokk ñun ñëpp loolu mooy yëfu gor mais bul si génne sa bopp bul jéem ma setal sa bopp lamb moo lamb mooy yàq lamb moo tooñ boppam kon nag ñun ñoo war a taxaw ñun dëggal na kat. ñun ñoo tooñ suñu bopp ñu taxaw xool naka la ñuy def ba defar li nga xamante ne bii ñun moom lañ tooñe suñu bopp defaraat image bi ba nga xamante ne bii kat nit ñi nañ xam ne kat ñi nga xam ne kat ñoom ñoom moom ba pare juumoon nangu nañ seen njuumte defaraat nañ ko ba rafet na ba nit rafet rafetlu ko ndaxte képp ku ko xool rafetlu loo ko donc nañ fexe ba nit ñi buñ ko xoolee rafet lu ko loolu rek mooy importance bi la ca des nag mooy. sanction yi nga xam ne dañ ko doon wax ñoom dañ ko wax verbalement nii rek mais nekkul loo xam ne loo xam ne lu ñu teg la du dëgg parce que itam su fekkente da nga yilif njaboot njaboot nga def loo xam ne naka sutut noonu la li nga war a jëkk def mooy lan sibile ña nga xamante ne bii ñooy principal yi nga dal ci seen kaw dal boobu ñu dal seen kaw nag c'est pas que dañu dal seen kaw pour que appliquer loolu non non non non dañu dal ci seen kaw pour defaraat pour que ko jox nit ñi ay leçon que ne ku def. nii lañ lay def parce que loolu mooy yoon xale bu nekkee ci biir kër def naka su noonu dangay ngay jël yar caw ko pour corriger ñi des ñoo xam ne ah diw ko defoon na lii sam papa dóor na ko kon su ma ko defee daf may dóor bu dëgg parce que arène bii ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko moom. bi ñu fi toogee teg làmb foo tollu dégg suñu làmmiñ yi foo tollu dégg suñu wax ji kon bu ñu demee ba tijji ko ñu bëgg a ñëw di ci def image yoo xam ne rafetul ñun mag ñi dañu war a taxaw wax ak askan bi ñu defaraat suñu jikko defaraat suñu comportement defaraat suñu bopp nit dafay yar boppam nit dafay yar boppam mais warul demee ak fukk dënnam warul demee ak lu ko neex bu dëgg ndax kenn du ci mer yëkkati sa télé papa dóor ci suuf. kon nag waroo dem ci loo xam ne da ko bokk ak nit ñi nga mer bëgg ko yëkkati dóor ko ci suuf loolu teguwul fen teguwul fen nañu yaraat suñu bopp defaraat suñu bopp. yow sa dafa bokk ci sanction yi. sama mbër dafa bokk ci sanction yi mooy caatu limousine moom dafa bokk ci sanction yi. téye nañu licence am téye nañ licence am téye am waaw téye nañ licence am téye nañ am waaw. ngeen lan ngeen di sàkku li ñuy sàkku ci CNG mooy lenn. bu fekkonte ne mbër bi moom moo ñëw nekk ci biir enceinte bi def acte violence boo xam ne moo influencé ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tribune bi ba violence boobu am dañuy xam ne mbër bi moom moo def lii parce que moom moo influencé li nga xam ne moo am mais mbër bi ñëw na ak respect li ko war def na ko liñ koy doyee di ko fa xaar yëpp def na ko matale na ko pare na ñibbi na la topp ca gannaawam nag. la ñuy def kenn mënu ko canaliser loolu CNC xam na ko déjà te it képp koo xamante ne bii itam responsable nga xam nga loolu waaw mënoo mënoo mënoo mënoo mënuloo canaliser mbër ba canaliser liy topp ci gannaawam kooku mënul nekk c'est impossible yow mu may posé question bi ci biir liggéey bi yéen ñooñu fi mu toll yéen lañ a canaliser mais nag ñi nga xam ne ñoo topp ci seen gannaaw yéen mënoo leen a canaliser parce que boo leen di fekkewuñu ko la leen di wax itam duñ ko fekkee. parce que yilifoo leen ñi nga yilif nag nga mën a teg ne leen ah bëgg naa lii def leen lii bàyyi leen lii lii kat bu leen ko def ndax lii ñaaw na ci seen der te nit nag waruloo dox di tuutal sa bopp wala ngay dox di xeeblu sa bopp te am na jëfin yoo xam ne soo ko jëfee wala nga doxe ko yaa ngi tuutal sa bopp parce que ñu dañuy sa xale yi di wax ak ñoom mais ànduñu ak ñoom pour la forme ànduñu dañuy ànd ak ñoom pour teg leen ci yoon pour seen image rafet ñu xam ne kat ñii ñi leen kat. ay nit ñu am xalaat lañu ay nit ñu am cër lañu te ay nit lañ ñoo xamante ne bi itam lañ leen di doyee matale nañ ko mais soo jiitee mbooloo muy def violence mais danga naan ña ca bopp ba ñoo matul la ñu doon kon loolu tuutal sa kilifa la te nit du tuutal kilifam nit du tuutal kilifam. donc lii ñu ngi leen koy ñaan encore une fois di ko di ko message bi tous les sénégalais boo xam ne responsable nga comprend nga nga jéem a fexe ba taxaw ci sensibilisation bii nii supportero mbëroo ñëpp ñu xam ne stade bii ñun ñoo ko moom. président liggéeyu ko pour benn sénégalais daf ko liggéey ak daf ko liggéey pour tous les sénégalais yaa ngi dégg lutteur en actif ak lutteur bu nekkul en actif ak ñi nga xamante ne bii ñëpp ay ay kii ay supporteurs lañu ak ñi nga xam ne ay amateurs lañu ak ñi nga xam ne ay promoteurs lañu directeur de société beeg entreprise beeg yëpp ñu ngi ci biir làmb parce que yëpp ay sponsor lañ ci biir làmb kon làmb Sénégal gépp ko bokk Sénégal gépp ko moom comme que ñun ñëpp ñoo ko moom nag nañ ci ànd bokk ko defar image bi rafet kenn ku ci nekk la cay sa wërsëg nga jël ko loolu mooy yoon. nit du yàq li nga moom encore une fois waaw loolu daal moo nekkoon li nga xam ne mooy message bi nga xam ne maa ngi koy parce que saa su nekk ñun ñu ngi bokk ci association bu ñuy wax AREMS Malick Gningue moo nekk président bi moom moo ko jiitee ay responsable ay kii rek ñoo ci nekk ay président écrit donc ñoo ci nekk comprendre nga ah ay Cheikh Tidiane Niang président Wang Sarr ah, ay ay ay jaxate ay ay ay ñoom ay ay ñoom kii euh, Baytir Ndoy écrit Yoof comprendre nga ay kilifa rek ñoo fa nekk ay kilifa rek ñoo fa nekk donc kon ak président écurie Tay Shinger ah Khalifa Niang ñëpp ñu ngi foofu noonu moo bu booy président écurie jëf soog a nekk xam nga ah ay daaru gëm sa bopp yooyu yëpp tey ñu ngi nekk ci biir association boobu noonu donc kon war ñoo mën a defar image su làmb mu rafet. loolu daal man moo nekk li nga xam ne maa ngi koy laajee ñi nga xamante ne bii ñoom laa bokkal ak lu làmb ñëpp waaw yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu trang defal ñu xéewal yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci suñuy diggante. ndax bu réew mi amee jàmm ñu am jàmm waaye bu réew mi amul jàmm du ñu am jàmm su adduna bi amee jàmm ñu am jàmm su adduna bi amul jàmm du ñu am jàmm kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci adduna bi si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si barki Seydi Aboubacar si jëf sama sëriñ kontaan naa wasaare làmb ca kaw ca kanam merci beaucoup. <laughs>